lu dul suñu jàng waay na dul dimbali monsieur le président ñoo ngi lay lancer message nga dimbali leen suñu jàng ñun amul lu dul suñu jàng nous sommes des jeunes xam na te président dañ doon nekk suñu école pour jàng na dul dimbali ngir ñu ñu delloo suñu jàng ñu delloo dans la bonne éducation maa ngi gërëm ñëpp merci beaucoup Bara donc on peut continuer notre marche pacifique je pense a

Donc, on peut continuer. Donc, mon ami, moi, tu es André avec TV. Voilà, affaire parce que ça nous quoi, on est marre. voilà affaire de dafa métti gis nga élèves yep chaque jour dañuy ñëw di daj lu métti nous lool. Macky élève là. Et après dañuy def là. plat lay ko wax. c'est pathétique. ces images là ne sommes pas beaux pour le Sénégal. voilà c'est pathétique. c'est pathétique même Lola. la. affaire yi donc. nañ dugg ci biir nañ dugg ci biir. Euh, affaire yi moom c' est catastrophique. parce que deux mois rek lan jàng école ubbee ba tey. entre en plus ñun ñu war a def classe examen du devoir du compo dafa ñu daal te fi mu toll nii nii nii waaw waroon naa fekk ñu def compo wala wala devoir lool tamit war nañu ko xoolaat Macky Sall ci affaire yi aussi professeurs yi tamit. nous sommes les, 95% euh, de ce pays. Moi, je suis nous développer. Parce que nous avons une balance. Mais en balance, c'est pas possible. pas, possible, mais. raison euh, pour laquelle nous faisons la, la marche. Et nous, nous lançons le gouvernement qui règle notre problème. Vraiment, on est fatigué. On est fatigué. Parce que euh, il, y a des semaines, des semaines, nous, nous ne faisons pas de cours. Et nous, vraiment, les classes d'examen feront, quel que soit Alpha, leur bac. Et, euh, par exemple, les, les, écoles privées, les écoles privées, ils ont un étude. Par exemple, euh, gisee nii nag tey dañoo takku jóg ngir wane ni nga xamante ni moom lu metti parce que depuis ba école Dubé ba comme niñ ko waxee ñi ko ñëpp waxee defuñu benn composition ni de devoir kon nag dañoo waroon a jóg taxaw wane li nga xam ne moom lu metti ngir gouvernement bi jóg xam ni que ñun ñii ñoo yor ëllëg réew mi buñ ko deful tey bu année balance amee suñu pertement lay doon mësu mënuñoo inscrire suñu xaaxee ba pare toog fii def jànguñu defuñu leneen kon nag gouvernement bi war na taxaw ci li nga xamante ni mooy suñu besoin ndax ñun ñi bu ëllëgee ñoo yori réew mi mënu bu dee nii la ñuy continuer nag fi gisee gouvernement boo xamante ne du fi liggéey dara dara duñ ko xam